leen voitures yi arrêté leen voitures yi sonn naa am naa léegi trois voitures maa ngi am na doré ak rouge léegi maa ngi am kii bulo du genre affaire ay waay arrêté leen voitures yi léegi su ma xewee sax doy na su ma xewee sax bëgg naa léegi xewi leen ma dof dof lu naa di wax waxi di jëf jëf yi nu dof di xeex xeexu dof ma voiture ay waay arrêté leen am naa man jaay am naa trois bu ne di gendarme yooyu waxi dof yéen la ko si xeeb waaye xeeb boo ko de ay waxi dof am solo ñii way way dara waxi dof xam naa nag ñii way ko ñu magi seen xool way nit waaye leen ni man am na trois voiture gi xii bu anjaay gi xii bu la yéen laa waaye sàggane ma ko de di Jean Fonante ñaata tukkeen ñaa ñi gaañu di Jean sangu piscine kilim ay waay arrêté leen voitures yi booy maa ci voitures yi ay waay